doon laaj ca faal day ah ngoye ngi mbaadu bi nga xam ne dañ koo taxawal ni lée dafa am ñu ca mer ubil wal fajri nañu gouvernement Sonko un ba day ah. président Ousmane Sonko ca boppam waaw woo na nag ñi nga xam ne ñoo bokk ci coalition Diomaye président ba yëpp ñu daal di dakkal nag lu jëm ci seen bopp maanaam kon indi intérêt wu réew mi lée dëgg la daal di farataal l'homme qu'il faut à la place qu'il faut te loolay dëgg jël kon les meilleurs choix saa yi ni nii kon occasion ba taxaw na na danañu jël nag ña nga xam ne ñoo ca mën di jafe na nga nag ay erreur mënta am erreur day bu xasee ba am rek am na erreur la erreur la Ousmane Sonko ne dama ne erreur mën naa am waaw waaye nag jàpp leen ne nekkul am tayeef loo xam ne kon nañ ko def daal di koy tey looloy dëgg journaliste bi la di Ibrahima an kon ci yéen a kaay Sidi Lamine Niass ga nee na léegi nag liggéey au boulot maintenant liggéey gis nga ay rupture continuité changement dans la continuité loolee daal du ca dara peu importe la la wax xam nga lan mooy farata gi te loolee ñëpp xam nañu ko waaw waa ji nga xam ne moom la sénégalais fal day ci 54 virgule 28 pour cent waaw Bassirou Diomaye Diakhar Faye la tudd laa la wax moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye moomee ci Vox Populi ah moo ko Ousmane Sonko day xooleel ba ñu gañee ba léegi ni lée nekkuñ fi di jubilé de di tëb di dalak yooyee non non non non non non déedéet c'est que nag wàllum réalisme du pouvoir daa dugg de ginnaaw wàllum populisme bi nga xam ne moom lañ nekkee woon ca opposition ba waaw diggée yi nga xam ne kon doon nañ ko diggee ca campagne ba day les promesses électorales ah Bassirou Diomaye Diakhar Faye nee na man day élection bi lée dama ko jàppewul ni victoire déedéet jàppeewu ma ko dam de dama koo jàppee ni kon ab yéen la woo xam ne kon dañ ma koo sëf ab grande responsabilité loolay dëgg bés bi yéene kaay ndaje mi nga xam ne coalition Diomaye président waaw amal ko Ousmane Sonko day ma ngay nakal mais ña ne président Diomaye day politiciens yi nga xam ne kon wàllum politique lañ jël kon def ko métier les politiciens de métier waaw da leen a safee waaye déet waay ah kay ma ne la Bassirou Diomaye jaaxeer fay ah bërëbu naanu kaay ak lekku kaay la ne raaf tëjal ko kon transhumant ya ño Ousmane Sonko ca bés bi yéene kaay ne Bassirou Diomaye fay day waaw ñun ñëpp dañ ko war a taxawu parce que man nag Ousmane Sonko am naa sens fekkeek ak Macky Sall dund ak moom même bu dee indirectement guddeem yu mujj laa lay wax mi la ci wàllub nguur ah waw waaw Ousmane Sonko ci 24 heures yéene kaay ne tant qu'il avait des choses à distribuer il voyait des gens fer semblant waaw waaw dama ne la Macky Sall tànk mi ngi doon am lu mu doon séddalee ak di ko joxe ay mboq sak ay muraakeeg yooyee ah da daan am ñoo xam ne dañ naan ñëw ni xem di def def lu yëfu naan di te la ñuy def ko muñ ca dara loolee nag bañ kon mu dal kon Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi nañ leen koo war jàppale ko daal di koy gunge yéene kaay gi ne waaye taxaw njabootu PDS gi la parti démocratique sénégalais wi nga xam ne kon gisu leen ci gouvernement Sonko beeg Jomaay bi ah est-ce que mën a xaar ba élection député di ñëw waa PDS ci Vox Populi ne danu ne ñun waa parti démocratique sénégalais jàppale wu ñu woon coalition Jomaay président ngir mu jox ñu dara de déedéet sans condition critique yéene kaay ne fi mu nekk nii daal boo leen bëggee dégg dëgg farata yaa ngi ni lee li taxaw daar daar wàllum la nit ñi xaar mi ngi nii yéene kaay gi ne waaw parce askan wi di population bi li nga xam ne moom la ñu toog di xaar ak diggée yi xam ne maanaam diggée woon nañ ko yëpp jàpp leen ne xaar-xaar bu yàgg boobee askan wi mënuñu ko def déedéet ci lu jëm nag ci wàllum dund gi lee ak situation socio économique réew mi ah dama ne la gouvernement Bassirou Diakhar Faye mi lee jomaay ah fast track ba day la daal di wootee taf-taf loolee nga xam ne wexoon na lool nguuru Macky Sall bi nga xam ne kon moom moo fi jóge waa APR waaw daal dinañuy song nag Bassirou Diomaye Faye day ci Vox ubbi nag magistère am bi lé ak di violé ay charte violation flagrante laa la wax maar di taali waaw waaw wàllum statut wu magistrat yi nga xam ne président Macky waaw waa APR nee nañ mënta ñëw noonee daal di koy faxas parce que nag continuité la ñu wax les hommes passent les institutions demeurent loolay dëgg source année waaye yow décret xam ne kon jomaay da koo jël ca wàllum cour suprême ak waaw mais décret ba la kenn gisul di benn source ko a wër a wër waaye laa la wax waa kër Macky Sall yooyee amuñu lu ñu wax ubbil Sud Quotidien nañu Macky Sall ci boppam rapportu OFNAC ya daal dina koy suul de ñemeewu ko dama la loi bi nga xam ne moom moo créé OFNAC day la loi numéro 2024 06 waaw coppite galan la 2012 30 du 28 décembre 2012 ak la loi ba du 2 waaw moo indi déclaration de patrimoine dama ñaari disposition yoo yee boo sàgganee 34 dossiers yoo xam ne kon ña ngi ca doon ba tënk ba déposé ko OFNAC waaw boo sàgganee kon mbir ma dana ko suul ak yeneen yu corps de contrôle ya nekk ci kanamu procureur de la république la ilaha illallah les ko yéene kaa ne président day ma ngay alerté de ma yëglu de wax na ko ay alliés carrément ne leen nag réew daal bañ ñu koy jox toll na ci benn situation boo xam ne maara day taali laa la wax Arona Kane day ingénieur logiciel la ci yor yor yéene kaay waaw nee gis nga bombe salariale bii Macky Sall day ci boppam la bàyyee Diomaye wax gis nga ci weeruk mai 2022 waaw waaw weer wu dee wu ne Sénégal daan na fay juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar yu toftal kon juróom-benn ci ay milliards u salaire 77 virgule 6 milliards xam ngeen léegi nii la ñaata la waaw 106 virgule 2 milliards allahu akbar la ilaha illallah maanaam augmentation 38 virgule 8 ne dama ne même réew yi nga xam ne kon dañoo tedd yor alal laa lay wax ni lée lu ko faa gis te mësuñu koo dee bu yeboo mu takku ne wala takku ne naanaa yéen kaay Serigne Saliou Gueye leen ma ministre yi lée nga xam ne gaay gars yi xawuñ leen a miin nag ah Abdourahmane Sarr ak Cheikh Diba les grands argentiers de l'État Fatou Diouf Mabouba Diagne ñoom lañ denk wàllum napp gi lée sàmm gi ak mbay Chérif Diouf Alioune Sall ministre diaspora yaa ni la sursaane waa Pastef day président Ousmane Sonko lam leen wax premier ministre bi waaw képp koo xam ni kon am nga ci ndomba tànk day gaawal tekki war sa ndomba tànk laa wax nii bu dee maire nga bu dee député nga bu dee député googa président groupe parlementaire bu yeewee askan wi Birame Souleye Diop ministre pétrole waaw Amadou candidature Diomaye waaw moo koy remplacer ci assemblée nationale 24 heures yéene bu réy bi day mooy l'agro industrie ay lu ñuy dugal ci réew mi lée ci wàllum ceeb benn tonne 450 000 tonnes mboq 100 millions d'euros ci lu jëm ci wàllum meew meeg soow mi 10 ci lu jëm nag ci wàllum lekk gi lée denrée alimentaire maa la ko wax Diomaye day bu yeboo mu takku ne naana wala takku ne ngi gis libération yéene kaa ne coowal Seydina Mohamed Diop waaw juróom benn policier day jàllale nañ leen de ca kanamu tribunalu Pikine ak féete na leen ginnaaw ndax rey nit allahu akbar le mandat yéene kaa ne ñi ci këru kilifa diine yi lée ca Touba ak set yoon waaw Bassirou Diomaye Faye day ma ngay fal de mbir mi yéex na de ba léegi ni la demul de <laughs> bu dee troisième mandat day amatul ah bagaas yi daa war a leer ni midi boo paree ma ne la alaaji tëjal